Euh, salaamaaleykum alaikum, ngi tudd Aïssatou Sall présidente de l'association pour le soutien et l'accompagnement des sourds Je euh, suis ak en même temps interprète la euh, interpréter pour les sourds di les accompagne di leen jàppale dañu ñëw pour présenter li ñuy liggéey di def poterie di def teinture dañuy avons aussi léegi assas traiteur dañuy defar jus des ay amuse amuse bouche

Euh, mais tout le temps damay am fierté taxaw tay Pikine ñëwaat di gis vraiment li ñuy liggéey lu am solo li ñuy def. c'est la première fois ñuy exposé c'est la première fois euh, mais man dama doon bokk ci salon bi euh, parce que comme li ma leen waxé damay dama dañ ma formé dañ ma doon formé formé nañ ma deux ans mais dama ci doon participer mais pour association bi comme yagul bu mu judo c'est bi moy suñu première participation. wa li ma ci dugal amour la métier bi luma bëgg la passion la tay dama gis né bon amna oncle bo xamante sour sourd la mënul wax du dégg et aussi euh, gis na né sourds yi dañ leen euh, écarté dañ leen ber ci société bi nit ñi faale wuñ leen ak yoyu moo it euh, man après à l'âge de 18 ans laa commencé fréquenter leen duggante ak ñom mu nekk lo xamante dama ko bëgg soxlawuma ci alal wala leneen mais dafa nekk amour ci man ma bëgg ko depuis lors aussi, je suis avec eux, ça fait maintenant 10 ans. Je suis avec eux, mais vraiment, j'ai des difficultés. Parce que quand je suis là, ça sourd. Tu vois, il faut que je maintienne ce monde. Euh, naturellement, là, quoi, il faut que je le journal, Je remercie remercier, voilà, terminer may remercier journal parce que tout le temps ñi ngi taxaw euh, euh, di di fësal li nga xamante ne moom la di def ñu ngi leen gis tout le temps seen liggéey rafet na trop trop trop di remercier qui créé li directeur bi ñu koy sante diko gërëm vraiment ñi ngi kontaan ci liggéeyam di ko encourager ñuy wax né ne souri. ñun ñëpp kontaan nañu ci journal bi et que vraiment ñu jappalé ñu ñuy woo autorité yi Euh, ñëpp ñi nga xamante ne rek war nañu mën a jàppale Sourmé ñu ñëw ñu jàppale ñu parce que c'est des personnes yoo xamante ne wax dëgg yàlla ñu mot a jàppale lañ